saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa saison 2020 2021 bu nara neex nara jax corona mu fi jógee tee lamb ji neex ba ala daw me gu ñu namm lamb tax na ñëpp nga ca ñu ngay waajal bu déwén père Gaston ma yëngal lamb ji ci ay super claf am na yeneen i yu ko fekk si sa biir gannaaw ba mu fi déclaré ne dafa soxla diggante Eumeu Sène ak Bombardier soxla diggante Sa Thiès ak Gris Bordeaux rëg-rëg ak Tapha am na yeneen i yu jóg soobu ca ñoo xam ne ñu nga ca démarche ya Aline Badara wax bëri nekku fa di def ay démarche jóg taxawal combat ba mu bëgg saison bii ñu dëgmal combat ba ci njëkk taxaw bokk na ci diggante Franc ak Tyson 2 mbooleem kuy amateuru làmb yàkkamti nga bile duel diggante Franc bu Parcelles Mbooloo ak Tyson 2 bu Tay bile combat kenn du ko lijjanti booy wër ndaanaan ku lu fàddilin si ci Tyson 2 bu Tay Shinger naan nuus jàpp bu ñu xoolee palmarès am 18 la ci def ñaari defet képp la ci am yeneen 16 combat yépp da koo ay ndam ko la mujjee daan ñu ne kon Tyson 2 champion la ci biir champion yi ndaanaan la ci biir ndaanaan yi waaye ka muy dajal mooy daj dëpp gi kenn du moom Émile François Gomis lay wuyoo mu mëne fii mëne fee lutte sans frappe bi kenn dootu ko fi présenté lutte avec frappe noonu mooy boroom 9 combats victoire daan fi géeñ bambulaan jarada ak rëms teg ci Serigne Ndiaye 2 caatu yoof njaga doole mujje ci mbaytin 2 ngeer ak bébé ñu ne bile ndaanaan digganteem la soxla am ko ci ay plan digganteem ak guy gi la soxla te bile promoteur fësalagut boppam waaye avancé na ci démarche ya bu dee waa kër guy gi ñoom xamle nañu ne démarche ya commencé na nas moo ko confirmé te li mu wax ci guy gi dëgg la bu dee ca côté Eumeu Sène démarche ya commencé na léegi ñu juboo lanjang ci jëmmi boppam moo xamle ne promoteur bi woona ma téléphone loolee nag mooy commencé nañ waxtaan ba bu sottee bile combat taxaw waaye nag foofee la fay luus di fa lëndëm mooy waa kër Eumeu Sène bañ leen woowee waxuñ leen ne seen diggante guy gi lañu soxla en li am ba des mooy bile combat mooy bi ñu njort diggante guy gi ak Eumeu fan yi ñu dëgmal daal démarche su yi dana mel ni fittugu mbër sànni jamono ji promoteur yi nekk ci géew bi ku ci nekk yaa ngay wërib combat saison boobee ñu jëm saa sa Garga ci ban ténor lañu jëm gannaaw jàpp nañu ne VIP yi dañ leen di dàq kenn nangu leen may sens boo moytuwul ñoom gone yi danañu mujjee bëre seen biir ba mu leen da diggante Modou ak Ama Baldé kan moo ci bénéficié ci report bi combat bii ñu fomm ndax avantage u la wala avantage u Ama Baldé en tout bu ñu ko bëree woon jël la ndax Ama Baldé mooy daan wala Modou mooy daan kenn xamul ndax Modou day continuer di nekk roi des arènes wala Ama Baldé da koy coppati ca moom kenn xamul la ca am ba des mooy combat bi ñu dàq ba jëmmi jamono am na ku mu arrangé jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekk li gën a fës ci ëtti yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah